oh gars yi xool leen geste bu rëy bu rafet bi nga xam ne Xavi def na ko envers kookee di FC ab Barcelone lii nag rafet gi mu rafet moo xoolul nga doon catalan merengue manqué ñooy pour war koo mën a rafetlu. maa ngi ñëw salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ku ci nekk seen ab tur ak seen sant balaa maa ñëw ci saf yi lu rëy li nga xam ne jot na ko def dañuy wax ci Koke ah, ñu naan ko euh, mën naa ni Kvaratskhelia doon la Gersdorpfien bi nekk Napoli ah, Paris Saint-Germain pare na pour teg lu tolloog 100 millions d'euros ngir war koo mën a jënd gone googee nag pare na pour dem ah, foofee ca Paris Saint-Germain li mettil mbir bi mooy que président Napoli bi nga xam moom c'est toujours comme ça il était comme ça avec Kalidou Koulibaly da ci gone goog yi ma leen di xaar ci commentaire yi ba xam Paris war na yokk wala mu yam foofu man daal par su ma sañoon Paris fa lay yam jël ko nag joueur bu baax la mais tamit warul dépasser cent millions d'euros moom lañ nommé meilleur joueur foofee ca euh, mu ngi doonee fa la nekkoon waaye moom jëlu décision toog foofee Manchester United dafa pare pour jaay ko pour mën a am quelque xaalis ci euh, gone googee kooki di Xavi Hernandez doonoon ancien coach FC Barcelone li nga xam ne moom la def lu rafet rafet rafet euh, Xavi nag mën naa ni dafa dese woon contrat un an ak kooki di FC Barcelone waaye laajul benn yoon euh, compensation benn yoon te lu ko waroon la waaye yamaatuñu foofu Xavi euh, duñ ko jox lu dul deux virgule cinq millions d'euros yoo xam ne nii moom moo ko moomal boppam deux virgule cinq millions d'euros yoo xam nga la waroon ñu koy jox pour wax leen lu rafet li Xavi def ba muy ñëw Barça il fallait que Barça fay lu toll 2,5 millions d'euros ci club boobee di Al Sadd bi nga xam ne fa la Xavi nekkoon pour Xavi mën a ñëw foofu Xavi loog moo génnee xaalisam fay loolu pour war a mën a ñëw FC Barcelone ci noonee nag Barça xaalis bi nga xam ne Xavi moom la fayoon pour ñëw foofee moom la ko Barça delloo képp te Barça waraloon na ko yeneen i xaalis yoo xam ne war na koo jox Xavi mais Xavi baal na leen lépp pour juste encaisser juste xaalisam bi nga xam ne moom jëmm boppam moom ma ko génnoon pour jàppale club bi ci problème finance yi nga xam ne ah, ci la ah, nekk mu doon geste boo xam ne c'est quelque chose boo xam ne c'est a souligner c'est à saluer un grand homme homme avec H grand avec H vraiment ku bëgg club bi mooy kookee di Xavi Hernandez bu ma daan wax naa leen catalan yi Xavi peut-être bu toogee mën na jàppale club bi ci bëgg club bi moo taxoon may wax malgré choix am ak ay tactique yu bëri des na te coach bu bees la c'est c'est pas évident mais bëgg gi nga xam ne bëgg na ko mënoon na ko pousser à ce mu jàppale mais tamit destin moom moo demee noonu tey Hans Flick coach bu mag la moo gën a doon coach bu mag Xavi kon bu ngeen ko amee da ngeen di daw ba rëq c'est normal ngeen ko bëggee noonu mais Xavi jàpp leen ne ne vraiment ku bëgg seen club bi la Barça geste bi mu def nii pour nit def ko surtout ñu dàq la dàq la tas sa yaakaar euh, nga nga annoncé woon da dem pour bañ gàcc ak sa ancien club bi nga xam da nga ko bëgg ñu baab la baab la ba nga toog muy président bi mu dem ba dernier moment mu dàq la dàq bu ñaaw foofu mënoon nga ne ah li ma waroon ak yéen ci wàllu xaalis yëpp da ngeen ma koy jox duma leen baal dara ak ñoom seen mais il a tout pardonné waaye lenn rek la jël ci xaalis mooy xaalis bi nga xam ne moom moo ko fayaloon boppam peut-être lebal la ko mën naa ni fayoon boppam moom lañ ko dellowaat mu doon des boo xam ne geste bu nice ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee jàmm ci yéen gars ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ leen seen téléphone. ok échange bi mën naa ni euh, dañ lay jox portable bu clean boo xam ne. du bu clean bu bees tàq lañ lay jox venant bu set wicc bu la neexee ñu jox la select si yow lay def batterie beeg doon authentique lay doon. te yaa koy defar réglage yi mise à jour et tout. Ah, ñoo koy defar